mais li mu mandat yi la. ba léegi moom moo ko expliqué. téereem bi mu bind pour jaay candidature am en mille dix neuf bu fi mu koy aggalee moo ni lii mooy son second et dernier mandat ñaari kàddu yu la utiliser. su dee ci tubaab defe naa pléonasme la ñuy wax. c'est-à-dire que euh, ñaari yi presque di kii donc moom moo ko wax te tey mun naa wax ni su waxoon.